asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyu noo nuyu ci turu sëñ Fallu Fall jëm si mbirum ta muy nuyoo bu mu jëmee ci mbooleem yow suñu mbirum ta gépp nag ànd ay jant ak i gërëm yu mat sëkk ci lépp ci fépp waaye nag. muy lu jëme ci njaboot gépp waaye nag mu tàmbalee ko ci na ngeen ko baaxoo déggee ci moom mu tàmbalee ko ci rakkam bi rakkam yu tedd yi mbokkul sëriñ bi xëy ñooy ay bëtam di aw làmmiñam day tànkam day loxoom léppam rek moom itam muy seen lépp muy ñaan sunu boom kàddoom yi fekk leen jàmm fekk njaboot gépp jàmm muy kàddu yoo mu ko daan waxee rek lu mu ci seen loxo rek njaboot yëpp daañ jot kon may ngi fab kàddu yi ay baatum ndigal la bu ko dab bàyyi ko ci jëwriñu Sëñ Tuubaa ji seex ma waroon taxaa ñëw jëwriñu Seex Ibrahima Fall di Seex Ibrahima Fall si sa jëmb ñu ñaan suñu boom yàggal seen dund te wéral leen ndigal yàgg bàyyi ko Sëñ yaa ngi tàmbali gën Seex Faal te ngeen yàggoo jëfe lool muy ndigal loo xam ne fàttali rek la mu fàttali ngeen seen xol du ci bi nga xam ne sëñ Tuubaa Seex Mamadu Muntaxaa moo ko joxoon di moo joxoon mboolem jaww Seex Faal gépp nag ci teg ko joxal jërnam ji nag Seex Faal sëñ sa jëm teg ko maanaam yu bàyyi waaye mbir gën yëpp jotoon nañ ci ñëpp a si woon tàmbali liggéey ba nag suñ bëggee ba mu àgg fi am xàggoon mu joxewaat ndigal nag buñ jubee liggéeyu koor gi nan ko wér ba liggéeyu koor jàll ba ko jàllee mooy nan ko wér ba liggéey tooy xàgg bi liggéey tooy xàggee nag hmm, mu baaxoo joxe ndigal ñun du baaxoo ndigal mu yasalaat dem gi nag dafa bëgg nag nu dem xàggali ji léegi boobu yéen dellu ci xàggale wu aj na ci lu ne rek ci jàmm ak wërsëg ak xéewal ak mucc ak jàppandal lépp ci baax aj na ko ci baax lu ndigal bii ñuy bëgg a def yi muy àggali liggéey boobu muy stade bii ñu doon defar bii nag ko joxoon ci kër bi ñu joxoon bi ñu joxoon jëriñ mm, muy muy kër mu tudd kër suñu tubaab nag wax ni kër Serapha rek ku ñu doy daa mel ni ñëpp la ko boole. du ma tudd Serap Fall waaye ñëpp ñëpp wuyu rek bi njabootu Serap Fall gi yëpp wuyu itam daa mel ni kër Sëñ Tuubaa yi daal xam nga mboolem ñi Sëñ Tuubaa seexal ñi ci yëpp gis nañu jëf bàyyi ko ñu ci ñoom ñëw ci liggéey bii Sëñ Tuubaa liggéey lu waa kër Serap Fall mais nag ñi takk Sëñ Tuubaa daal mel na ni xam daj nañu kenn ku ne daal jëmmam teew na fa wala jëfam wala loolu daje na sëkk daje na matal na rawatina nag mbir yi nga xam ne suñu yaakaar dafa ne Sëñ Tuubaa nga xam ne ñi sàkkoo feneen te loolu maa liggéey Sëñ Tuubaa rek tax ñu jot ni kuy liggéey Sëñ Tuubaa moom soo gisee luñ ci loxo Seera Faal te ñu liggéey Sëñ Tuubaa loo loo ca defee bokk nga ca daa mel ni ñi nga xam ñooy jëriñ liggéey bi ak seetlu naan ban daal ban dalee woote ab liggéey ba tey yaakaar naa wuusin wi moom na ni mooy benn bi ci la tàmbalee hmm. liggéey boobee nag jëriñ Sëñ Tuubaa joxaat ndigal jëriñ sarafaat mu xàggale ko ndax moo waxoon taxawal ko mu jàppoon ko nag benn fan ci fukki weer yi basan wi mu weer yëkki weer tubaab fukki fan ya hmm, dëppoo bisub di weer nag di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru rakaati gàmm dañ ko di jumaa ah, di jumaa dawal fan ak juróom ñett moom itam ñaar fukki ak juróom ñett ñaar fukki ak juróom ñett di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru kaati gàmm di fan rek nag ci weeru tubaab bi ñu janvier xëy nag mboolem bu ndigal Sëriñ Fall yëpp jotaat nañ ci ndigal li mooy fu jëwoon ne rek jëwriñ Sëriñ Fall ji bind na leetar joxaat la ndi baat ci ndigal li nga xam mu bàyyi koon si jëm si tuwaña ñoo tam nu ñaan sax mu yàggaloon seen dund ñoom jëriñ yi te suñ feri nag bokk ci jëwriñ ya ndax mooy jëriñ ko si mbirum Sall moo tax ginnaaw jëriñ bi nga xam ne daal soññu ñi mu siy jëriñ muy soññu ñun ñi xëy mooy suñu jëriñ rek yow si mbirum ndigal moom ñëpp ko miin rawatina waa kër Sëñ Fall nag rawatina waa kër si mbirum Sall ñi tam si daan ub daan ñàkk buntu këram ci baatum ndigal sëñ bi seen liggéey bi liggéey bii hmm, lim ci xajal njaboot Sëriñ Faal gi rëy na hmm, instant moom jural ci lépp rek suñ fa lu nag di soññe nag te jiital soññe bi boppam ak rakam yu baax yi mu bokkal sëñ bi ak noonu muur yëpp te moom di xam ne rek moom waajtaayu liggéey baa ngoog ku ne xam ne kuy wuyu ji ku nekk suñ gaa yóbbaale si yëpp nag mboolem looy gànnaaw yi ci liggéey rek hmm, tàmbale ci lépp lépp loo loo loo fa yitewoo hmm, am kodd ab dund ab dundam lu ci ne mos leen yóbbaale si naa yóbbaale dëkkuwaayam si naa yóbbaale dalwaayam ak lépp loo xam ne dana ko jëriñoo ca ka ko moom ak lépp loo xam ne dana ko jëriñoo ca ka ko woo lu mu jëriñu foofu ak lu mu jëriñoo lu jëriñ sëñ rek lu jëriñ murid mooy jëriñ lu jëriñ sëñ bi jëriñ murid bi hmm, yooyu yëpp sañ sañ ko mu sañ ko yóbbaale fay wuy ji suñ ko su ji ko nag buñ fàtte dara te itam mu suñu wàll nag léegi hadiya itam hmm. ñu nga xam ne leetar ya leen joxoon mu leetar xaddi yi ku ne xam ne liggéey tool yu nekkoon tax ab béykat moom buy rojju jox ko leetar xaddi yi xam nañ noo ko la ngay bay moomoo ci dara yow moom itam noo ne moowoon bay ma xel ba xam suñ ko mu joxe suñ ko ca laajee mu joxe ca baaxee nag bu lu ñu laaj rek ne laaju lépp ñu joxe ko kon lettre jotoon te jotu noo andi lettre mu nuyu suñu àndaale ko ak lu nam boole ci nag lu jëm ci liggéey ba ku jox na dimbali bi tam waajal liggéey bi loo xam la tàmbalee ci la nga dundee lan lay dundale la ngay jëfe hmm? li li li li li jëlee sëñ bi daal ci amul ak li li jëlee muy bi sëñ bi daa bari te yàgg na noo wujjee woo te xam na ko. kon noonu ko defee noonu nii loo am rek nu ko ndaale ci liggéey ba lu lu lu lu fay jëriñ lu ne seen jëriñ jaa sim bi nag nu ko ndaale wërsëg yi bu bu dencal dara ëllëg nga xamul daan fekk ëllëgam déet nga xam lépp def ci liggéey rek bu liggéey bi bëgg lu bëgg la dana sotti lu tàmbali lépp rek lépp daal la far la ñuy lay naan lay dëkkee lay jëfe lay jëfandikoo lépp rek ñu la wax waaw moom kon buñ bàyyi dara la ñu ñaan suñu borom nag mu defal nu kartan defal nu ak wér defal nu jàmm defal nu ak man goo xam ne yi daan nooy nepp ba suñu maneete am lan bëggal sëñ bi lépp si ñu lépp jàppandi ñu defee ko nu ko si bëgg rek seen mu saddiru xool suñu sedd na guy ci ndigal yàlla ba ba nu ba ba liggéey ba ni dem leen waajal liggéey koor la monsieur wax waxasul gi sax waxasul gi dégg sax ma si ko ne koor ren di dégg koor sax amul musul am ñu ngi ci liggéey ma mu fooxal lépp ñu ngi ci màggal gi ci la njëkkee ñu ñëw ci gàmmu gi mooy tàmbali mooy mosuñu gis lu egsi lu ne daal la la lañ ci xamee daawuñu ko am lañ ci maye daawuñu ko mën kon mu ñaan loolu lépp na doole ko jëm kanam rek liggéey bi daal mooy suñu lépp rek bu suñu yoon ne ci liggéey bi leen liggéey bi leen baa ngi nii lu xam nañ ci def rek nte xam ne nun ko nun ko jàppe rek xamee noonu la suñu bëgg na ko ñi na ñëpp ne soññu te ngay jëloon nam hmm. kon nag kër liggéey baa wax ñaari kër yi kenn kàddu fi jub kër suñu borom kër yi gën la ñenn fi jëf ñenn fi wax ñenn fi def mooy su leen dégg mooy su leen gis ab woote mukk bu nii kër suñu waxet gi la jógee ñu ko woo jëmee ko leen ci liggéey bi suñu tubaab bu mu jaaree kër sa fan lépp. jëriñ lu jëriñ yooyu xamee ni kër yi du yaa genn la moo tax déglu leen kàddu mën naa wax mën naa def mën naa jëf hmm, waaye nag kàddu euh, kër yi ñoom su ne kër yi xam xam nañ li tax ñu wax yi kàddu gaa ngoo gi sama borom nag dolli kàttan nag wér jëriñu kër yii dolli ka dolli ay njëggal ak i ngërëm ci basax moom noonu ñin doon seen i jëwriñ ne ci basax suñ jëwriñ yu baax yooyee ak léegi ñu baax ñëpp ñoom la ak la seen jëwriñ ñu baax ñi ñu doon bàyyal ñu lépp nag ci yiw yeeg man yeekaas seen wërs yi muy dara doole ku indi xaar ko yan xat yi ak seen yéene ñu seen rakk yu baax yi naan yëpp rek. kaddu yaaw daal moom noonu ko siy bëgg rek ku dégg daal noo ko ma saraabam dolli ko daal ko kon ku ne am na asdirale ba kum neex nag daal nekkoon lu koy yeesalaat ko mën defaraat rek ba balaa booba ba xam noo fay nekkee wasalaamaaleykum wa rahmatullah na sëñ bi yàgg sunu kanam ñu ngi suñu jëm ñaar ñaar ci